mbokk yi sa foo leeru jamono Walfadjri bismillah mbégte la ñuy ànd ak yéen feggoowaat ak yéen si seen émission bi lee di célébrer euh, yoon gannaaw bër boo xamante ne amaloon nañ ko ci euh, weeru koor gi ñu delluwaat euh, ziarat leen célébrer yoon ni ñu koy waxee rek dañuy pencoo lépp loo xamante ne dafa yemook actualité ay bés bi waaye laata may tàmbali ci si célébrer yoon damay dellu sargalaat ki nga xamante ne moom moo di Serigne Saliou Samb jóge fii fan yi ñu génn mu nekkoon collaborateur xamante ne ne ku amoon pas-pas la ci li muy def doon ñu jàppale bu baax ci rawatina ci émission bile di euh, célébé yoon ñuy ñaan suñu borom teeru ko ci àjjanay euh, firdawsi bàq bale mu tëdd yàlla na doonop euh, noflaayam moom Serigne Saliou Samb ñu jàpp ne duñ ko fàtte benn yoon di koy ñaana ñaanalal rek saa su jot di wax suñu borom mu yégal ko ci àddina yi gën a kawe jéggal ko lépp loo xamante ne ma ngi ko doon def fii ci kaw suuf ñu tar suñu émission ànd ci tey ak suñu naataango Somb ak ki nga xamante ne moo di Abdou Khadre sanago di euh, sociologue ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ne rek mooy actualité ay bés bi waaye laataa ñuy xuus ci waxtaan bi dañuy nuyu ñu ñu feggal euh, ci plateau bi Assane maa nuyu. fay baax Awa di nuyu téléspectateur di nuyu tamit ba baax Abdou Abdou Khadre yow tamit ñu nuyu la. waaw ma nuyu la nuyu sa téléspectateur ak sa téléspectatrice aussi di am mbégte lool tase fi aussi ak sama mag ju baax di Assane. Mhm. ñu def rek lu dul euh, waxtaane ponk yoo xamante ne ay bés bi defe naa moom moo lëmbee li nga xamante ne moom moo di place publique yi ci biir kër yi ci grand place yi ñëpp di laaj euh, ay euh, samp ay laaj di ñaan lu leen ci gindi moom moo tax ñuy taxaw seetlu ci ponk boobu mooy wàllub pétrole gaz maanaam meññeente fu réew mi nga suuf si jamono ji indi na mbi coog mbaaloo ci rëkk bi ba ñi nga xamante ne ñoo di ñu jàppee seen bopp ay citoyen ñu ngi wàcc ci mbedd mi di ñaxtu euh, li ni mel waaye li ci yees moom moo dina ñu bëri dañu jàppoon euh, baaraamu lañ joxoon ci di Aliou Sall mu génn nag tekkil ndombal tànkam euh, ci li nga xamante ne moo di CDC biñ ko dénkoon waaye la cab yees moom moo di waat ga nga xamante ne waat na ko teg ma ci kaaminul alxuraan ñu bëri jàpp ne waatul ñii jàpp ne waat na ndax lu ñu baaxoo di gis fii si suñu réew la ak ban crédibilité la koy jox laaj bu njëkk bi dañ koy jox euh, Abdou Khadre. d'accord jërëjëf soxna si en fait euh, li ma xam daal ba xam ko mooy waat généralement su fekkee ne surtout dañ nekk si affaire diine ñu am na ay critères yu ñu teg pour nga def ko mais euh, balaa may dugg si question bi dama bëgg aussi préciser parce que aussi bien fii si média bi que yeneen média jot nañ ma interpeller si question yi mais si ay question purement technique maanaam si communication bi si stratégie yi ainsi de suite ma bëgg wax rek ne man personnellement je ne suis pour pourfendeur ni défenseur de Aliou Sall donc man xamuma ko donc man su may su may am euh, peut-être euh, intérêt wu intervenir si genre question yi dafay fekk rek ni dafa dugg samay Euh, domaine de prédilection en termes de recherche d'abord ci science politique parce man je me suis spécialisé en consolidation de paix ak conflit mhm. te gouvernance énergétique dafa nekk lu bëri lu muy yëngal ay askan ak ay réew donc man si question technique rek man si laay si laay intervenir donc mhm. si même sens boobu nga ma interpellé aussi si pas si exactement mais est-ce que Wade véritablement soo demee ba koy def euh, yan ñooy motivation yi lay poussé donc su ma su ma su ma su ma waree mun répondre si loolu nag damay ne damay damay def benn constat loo xam ni ñun Sénégal lañ nekk jarul ñuy ñuy dem fu gën a sori loolu. Mhm. ñun ñëpp gis nañ ba tàyyi si kanamu yoon. wala fii dañu am benn expression ñun à la sénégalaise làmmiñ du lekk moroomam te ñoru loolu foog naa ni c'est pas moi qui l'ai inventé. Mhm. te suma petite expérience de terrain war na ma ni soo duggee si wàllu yoon si cadre yoon. sénégalais am nañ fit bu toll ni loolu gis naa ko vivre naa ko dund naa ko def naa si ay recherche gëstu naa ko nekk naa si témoin ñoo xam ne nii si suñu demee ba situation wu jaaxle d'accord day dem ba benn instant boo xam ne nii ñoom ils se tous les moyens son bon pour sortir de la situation mm-hmm. loolu foog naa sénégalais yi ñuy seetaan koo ci jël exemple am mu waxoon la ko mun na la ci indil ay firnde bëri na ay moment yu tey bu ngeen interroger woon beaucoup de gens ci dirige des enquêtes dinañ la wax ni jàpp nañ fi nit ba taay ci biir kaso bi alors qu'au début ci entretien yi ñëw na fi waat ci sëriñam hmm. wala mu waat ci diine wala mu waat ci biible wala mu waat ci coran bugguma personnaliser parce que samay réflexion si ay fee dañ mais fee bu mujj bi ñuy wax te mu xewoon Tamba waa ji ñëpp dëgg ngeen ko ci ay ñaanam yu neex ay waxam yu neex ñoo ngay ñaanal diw ku baax la fan lañ ko fekk ci biir dëj bi dem jëli jiw man gis naa ba tàyyi si biir si ay affaire yoon wala pour muccal sa bopp nga waat ci loo xam ni leer na la ni demeewul noonu. Mhm. donc maintenant je ne dis pas moom xëy na waat na dëgg la wala dëgg moom rek moo la mun wax mais xam naa ne daal ci biir waat bi daf ci bëri ay éléments yoo xam ne nii ay éléments yu may nuroog opération de communication parce que dafa utiliser benn triptyque bu njëkk dafa utiliser le sacré après mu utiliser le divin après mu utiliser le religieux ñett la boole te gis nga loolu du rek. noonu comme ça par hasard rek la ñëwee wax que sénégalais yi war ko déglu donc su ma waxee le sacré alxuraan mu nga alxuraan bañ na ko ba ki nga xam ni moom waxam la dafa teg ay critères am laa yamassuhu ilal mutahharun pour laal ko sax dangay ngay laab d'abord donc utiliser ni pour wan nit ñi ni li may wax nii du fox opération de com deuxième bi mu utiliser le divin nee na euh, ak loo ci munti dégg ku gëm yàlla yàlla sunu borom donc mi ngi jox mi ngi renvoyer nit ñi directement que ñu xam ni moom jël na suñu borom teg ko entre digganteem ak nit ñi. Mhm. foofu aussi dina war a am peut-être effet escompté mooy nit ñi jël jël recul ak par rapport ak perception bi ñu amoon njëkk ci sujet bi beneen bi nag mu jël la religieux ci lay waxee affaire foi man ku gëm yàlla la donc soo gisee ku gëm yàlla nga war a xam ni boo tolloo fii war nga mais ma jàpp ni rek ci biir analyse bi su fekkee ni affaire ngëm ngay wax am na sax dégg naa porte parole bu bees bi ñu nommé mu ne waaw donc mënuñu ko reprocher affaire laïcité parce que il parlait ci benn. posture boo xam ne c'était strictement personnel et individuel donc ma ne ko mais justement gis nga affaire religion entre yow ak sa borom la mm-hmm. man de suñ ma tooñee moi je parle de man ba ma xam ni amatuma wéeru waaye jaaxle naa xaaja guddi laa yeew mm-hmm. julli sama ñaari raaka jàkkaarloo ak suñu borom ne ko liñ may tuumaal yow rek yaa ma ci doy seede je vous rappelle fàtte ngeen ba nga xam ne nii dañoo taqaloon la Vierge Marie comment ça s'est passé mm-hmm. dafa jël léppam dénk ko suñu borom suñu borom jaar ko ci doom ji doom ji ñëw setal ko donc moi je crois que su fekkoon ni rek véritablement affaire ngëm la ak affaire u alors mën nga wékk lépp suñu borom te man jàpp naa ni effectivement su comprendre woon le contenu du Coran. Mhm. gis nga Coran li ko ëmb ak a leer gis nga suñu borom ci biir Alxuraan dafa leer nee le mensonge prendra toujours son envol mais il se fera toujours rattraper par la vérité jaa al haqq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuuqa loolu doy na démissionnel dem nag yow wéer sa borom ci sunu wéer sa bopp ci sunu borom xaar lépp di parce que sunu borom du ay caaxaan affaire diggante dëgg ak fen day yàgg rek mais dëgg noonu foo fu mu ko fekk dina jib donc man question yi aw ma ci trop complication damay wax rek ne aussi il faut que ci biir analyse yi analyse yi di préciser ni que ba fi ñuy wax ni mhm. quand même mi ngi jouir si droit de présomption d'innocence am amul benn juridiction bu ko condamné donc jusque là ay suspicion rek la maintenant n na na yoon def liggéeyam jusqu'au bout su fekkee ni moo def ñu teg ko liñ ko war teg parce que magam moo doon wax ni amul citoyen bu extraordinaire si biir askan ba jiñ marabu yi ne leen vous n'êtes pas des citoyens voilà extraordinaire ordinaire donc à ce à ce même titre mhm. rakkam aussi du situation extraordinaire su defee nañ ko teg daan su deful foofu bugg naa insister su fekkee ni yoon setal na ko ah ñi ko doon accuser nañ ko présenter ay excuse te ñoom aussi ñu topp leen si yoon pour diffamation donc waat bi daal man perception yooyu laa si am xam naa ne daal waat généralement soo koy def mooy paniqué nga jàq nga léeg-léeg aussi nga def ko ndax tiit waaye léeg-léeg nga def ko aussi parce que da nga sentir ni ci sa amour propre dañ ko laal ba nga waat ne waat naa pour ñu gëm ma mais ci mm. biir société bi encore une fois le constat il nit waat na fi ba tàyyi fekk wax nga safaan wax nga safaan ba euh, loolu posé Assane mhm. crédibilité li nga xamante ne sax moom moo di propos yi nga xamante ne moom moo doon yëkkati ndax euh, nee nañ bi muy waat dafa ne recevoirul deux cent cinquante mille dollars ci Timis mais ci accusation BBC yi dañu ne dafa recevoir deux cent cinquante mille dollars ci BP pas ci Timis donc mu mel ni waatul ci li nga xamante ne lañ ko tuumal muy trois points yoo xamante ne yëpp évoqué nañ ko ci kii am ay analyses yoo xamante ne ils ont su euh, lire entre les lignes décortiquer li nga xamante ne moom la ci doon wax suñu dégloo Sanogo itam yaa beaucoup de non-dits ci li nga xamante ne moo am ak waat bi itam nañ ko waroon a formaliser. jër jëf Awa di nuyuwaat bu baax euh, sama vis-à-vis Abdou Khadre euh, Sanogo euh, kontaan bu baax ci émission bi di leen encourager di tamit incliné wu si mémoire Sëñ Saliou di ko ñaanal. Sëñ mhm. Saliou suñu xarit ñun ñëpp. yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana defal ko tamit ñëpp ñu jiitu rek kilifa kër gi Seydou Lamine ñu ngi fàttali ko Mamar Sini ak ñoom ñëpp rek ñu leen di ñaanal bu baax yàlla euh, suuf sedd seen kaw effectivement situation la bu xaw a compliqué compliqué na si ñi mu dal compliqué na ci sénégalais yi euh, bu jógee di waat yaakaar na Abdou Khadre wax na ko sànq day wane ni euh, situation bi àgg na ko fu sori ci mbiru jaxle te Sénégal ñaare boo demee bay waat c'est parce que da nga da nga jaaxle. Mm-hmm. Eh, xëy na amatoo beneen beneen moyen te bëgg nga tamit ñu ñu wóolu la ci li ngay wax ñu gëm la ci li ngay wax boo demee mag ba yëkkati kaamil alxuraan. Mm-hmm. yaakaar naa yaa ngi bëgg a sa borom sa diggante sa borom pour gën a convaincre tamit population yi ci ni vraiment set nga. mais euh, dama ci am problème ci waat bi euh, mën nañ ci analyser lu bëree bari bu fekkoon dañ ko doon décortiquer rek déjà alxuraan bi euh, est-ce que ñu bari ñu ngi naan est-ce que sax vrai téere la mm-hmm. <laughs> c'est la question euh, première question deuxième question est-ce que réellement liñ la poye yiñ la tuumaal ci nga tontu loolu mooy deuxième question euh, troisième bi mooy fi nga ko defee euh, man damay jàpp ni Euh, képp ku ñu sonal ci justice rek ngay sénégalais sociologiquement yow li ngay jëkk def mooy du man billahi daal di giñ ni du man ak yooyu loolu réaction naturelle sénégalais la procureur bi dafa am lu mu waxoon wax bi tënk ñëpp dani ak ironie la ko defee yéen ñi am lu ngeen di wax désormais dem leen dig ngeen waxee ci ko fa parce que foofu la jàkka ji nekk nodd damay wax Alioune mu dem sa jàkka ji yóbbu fa kaamil bi jàkka ja mhm. comme procureur bi moo tuddee dig jàkka ja mhm. na fa dem sa jàkka ja je pense que y a un canal actuellement dafa am benn canal bu ubbeeku mooy canalu justice pourquoi Alioune sentir le besoin bàyyi fa canal justice ñëw si canal communication di waat pour wax hein donc yoolu loolu mooy suñu première préoccupation donc problème bi dafa di un problème extrêmement sensible boo xamante ni du euh, problème opposant comme fi ñu ko bëgg a déplacer débat bi problème sénégalais yi ak les hommes politiques mais entre sénégalais yi ak seen richesse si nga xam ne ñoo ko moom ëllëg si biir ñu war ko exploiter anam anam mhm. li tey xel ci dossier bi mooy premièrement Timis Corporation kañ lañ ko créé Timis amul woon dañ ko créé au moment où ñu ngi bëgg a signer les contrats. bien deuxièmement amoon na rapport de IGE président ni far gisu ko. sa veut dire que exploité rapport bi alors que le rapport était destiné ñu xool ba xam donc Franck Timis également la personne de Franck Timis nga xam ni genre Bob Denard la xam nga Bob Denard bu njëkkoon mercenaire militaire la boo xam ni moo daan déstabiliser les pays africains militairement kii nag ba kii nag mercenaire économique la am na problème yu bëri ci réew africain nga dem di collaborer ak moom le simple fait nga dem di collaborer ak moom ci loolu rek yow bëggoo jàmm loolu laay wax benn ñaar le fet que yow nga créer société bi man damay jàpp ni c'était pour encaisser le le contrat moo taxoon nga créer société bi pour man ko jaayaat après. comme ni nga ko defee au senior parce que senior yi ñoo mën a def exploitation senior bi man ni BP. Mhm. ñoo mën a def exploitation. donc jaayaat nañ ko euh, deux cent cinquante millions de dollars selon le rapport de la BBC euh, enquête bi ñu def donc loolu c'est beaucoup beaucoup d'argent donc il faut mu leer. Mhm. leer bi du si wàcc wàcce ka euh, kaamil bi du ci waat bi du si canal communication leeral bi c'est au niveau de la justice. il faut que ci audition yooyu ñuy def Aliou Sall a jiitu. ah man de loolu laa jàpp damay jàpp aussi ni bu buñ ko dicté ni muy enquêté parce que DIC c'est des techniciens experts en enquête yu fa nekk yoo xam ne am nañ li ñuy wax ay techniques d'enquête mm-hmm. yoo xam ne bu dossier amee mm-hmm. dañuy mettre en avant seen i technique d'enquête mm-hmm. waruñu leen imposer une méthode d'enquête bien sûr donc ñoom xam nañ contrat yi fañ ko signé contrat yi am na traçabilité xam nañ ñu ko signé xam nañ montant yi fa jóge mais mais le truc n'est pas si compliqué que ça pourquoi cet di fàtte ki nga ñi nga xamante ne ñoo ko signé te ñu ngi fi de demuñu tukkiwuñu daayuñu deewuñu. Mm. donc je pense que leer na bu man daal li may jàpp mooy Aliou naka dem waate ji ca justice ba bu boobaa leeral mbir mi carrément aux yeux des sénégalais ñu xam ni lii la ci defoon ak lii ak lii mais nag y a un problème comme ni ma ko waxee sànq parce que dafa mel ni am na trafic d'influence parce que trafic d'influence mooy la tey euh, li may wax nii si télévision su fekkoon tey du woon frère lu président est que waa Guédiawaye est-ce que bu du woon président est-ce que euh, euh, est-ce que du woon rak frère président est-ce que Frank Timis dinañ ko fay deux cent cinquante euh, dollars par mois te loolu weddiwu ko est-ce que joué rôle intermédiaire ah kooku nitu koo xam ne yaay nekk ci diggante bi pour facilitateur mhm. est-ce que bu nekk woon le frère du président avantage yi ñuy wax noonu yëpp agritance ak yooyu yëpp dina am donc dafa loolu la wax ci droit trafic d' donc amee trafic d' am ay acte de concussion il faut que ñu def attention parce que yooyu c' est des yoo xam dafa apparenté à la corruption parce que soriw fa parce que dañuy wax les corruptions proprement dites ak les délits assimilés à la corruption mm-hmm. comme détournement de deniers publics ak yooyu te mënoo nag wax dëgg yàlla awa nga tëj doomi jàmbur mm-hmm. mm-hmm. ku ko doon ku de voleur amul ministre bu génn dans les médias am nay doom am nay mbokk am nay xarit. mënoo jël Karim Wade nga tëj ko exilé ko. ne ko boo fi tegee sa il avait juré sur le te terewul ñu. am na la euh, yóbbu ko prison. ba pare nag ne ko boo fi jaaree rek di nga xam di ñu fay suñu xaalis ma ne waaw comme daf ñu amel lu tax kon ngeen ngeen di ko bàyyi muy dem nañu fay lu tax nga ne kaa boo ñëwee fay ñu yooyu yëpp am ci contexte boobu en mai 2012 quelque temps bi président Fallo rek mu signé les décret d' application mais y' un problème. y a un problème <laughs> y a un problème mais tey euh, Abdou Khadre suñu déggee euh, Aliou Sall ci bi mu toogee ne day waat point yu mu wax yëpp dafa setal boppam ci lépp mu mel ni kon mosu see taqee kon lan moo fi war a indi problème bi apparemment c'est comme pour se dédouaner pour rejeter la faute sur son frère qui est le président de la République euh, tey jii ndax euh, ci point wu euh, BDK bi nee na moom créé wul banque bi mais bu ñu occulté ne Timis moo créé BDK boobu te BDK boobu moom ci conseil d'administration bi la bokk. waaw xam nga en fait moom laa la wax sànq du sax lu ma leen di jàngal yéen parce que yéen moo ko gën a xam gis nga opération de communication pour une fin bien précise bi ma rajo yi interpellé démb dama ne leen ni. waa ji ngeen gis muy wax mais am na ay ponkal communicant derrière. Mhm. yoo xam ne ni ils ont peaufiné une stratégie xam nga de défense par rapport ak li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy accuser waa ji mais waa ji moo la gën a xam ni ñun déglu nañ aussi ñi nga xam ni c'est les principaux accusateurs moi j'ai écouté Sonko si meeting bi mais dafa wax lu leer loo xam ni lu mais Aliou Sall waxul woon ak sénégalais yëpp waxul woon ñi nga ñi mu doon waxal fu comme on di c'est la masse populaire. ñi nga xam ni comprendre wuñu ils savent pas lire entre les lignes ñooñu la doon waxal beneen partie bi mu ngi doon waxal ñi nga xam dañ ils ils sont d'une forte sensibilité religieuse surtout musulmane beneen bi exhaustivement nag et très explicitement il parlait au marabout au cas où ñu bëggoon ko def na ko su dul noonu ñu xam ni moom xalaatul sax jël lu sacré bu mel ni Coran pour di siwaat donc nañ xam ne liñ koy jiiñ d'ailleurs moom xamul woon sax banque boobu créé wu ma ko ainsi mais euh, doyen Assane si léegi problème bi ci dès le la entre bi Macky Sall faloo ak bi muy signé décret d'application bi mais c'est en un temps record mm-hmm. surtout ci contexte boo xam ni on dit bi mu faloo bi mu faloo ça veut dire quoi ça veut dire que lan moo ko fal moom mais mbedd mee ko fal les gens ils oublient ça ci contestation bëgguñu lii pendant longtemps les gens par rapport à une certaine comment ça s'appelle encore agression médiatique partout seen kàngam yi ñu am yëpp ñëw nañ ab la dévolution monarchique dégg nañ ko fi Karim Wade on l'a traité de tous les noms dafa na génne sunu xaalis na sénégalais yi de manière très mature na ñun bugguñu ñuy saax-saaxee suñu ay biens entre ay loxow njaboot malgré que Abdoulaye avait un excellent bilan dinaa si ñëwaat peut si biir waxtaan wi mm-hmm. aidé par des forces étrangères ñu profité si loolu rebondir jàpp ay mouvements sociaux financé leen jox leen xaalis bu bëri di leen jox xaalis ñuy taal ay pono avec la complicité de certains médias aussi il faut le dire ñuy wane taal taal yi di ko amplifier fii ainsi de suite ñu dem élection même ñi faraloon Ablaye Wade ne de toutes les façons pour jàmm réew mi na tëb. Mhm. waa ji si contexte boobu contexte socio politique boobu la falo moom mu falu quelques mois après en compagnie de son frère ñu ne man pour man yomboon na quoi. Aliou Sall amul woon sax pour di jël kaamil ñun nous voulons une communication gouvernementale sur ça institutionnelle c'est clair Aliou mais en réalité ñun faluñu Aliou Sall je sache ñun Macky Sall lañu fal je te jure moi personnellement je n'en veux en rien à Aliou Sall parce que Macky Sall le suffrage sénégalais Macky Sall lañ ko jox donc moom si boppam bi nga xam ni moo ci dugal rakkam su fekkee ni am na lu ñuy reprocher Aliou Sall il serait le principal le principal responsable mais pour le moment comme leerul les sénégalais waxuñu diw la wala du diw de ils demandent juste à ce que leur lanterne soit éclairée maintenant c'est il fallait juste jël sa ministre de la justice jël sa ministre chargé de la communication jël sa porte-parole mais ngeen jox ñu par rapport ak ay documents ñoom ñoo gën a gaaw ci document fi bi Idriss Seck defee livre ñoom def nañ réponse mmh, mmh. pour génne boobu dégg wax argument contre argument la nous voulons juste citoyens sénégalais en tout cas dañ bëgg juste ñu leeral leen ni lii xëy na opposition bi di wax pas opposition en tout cas les dettes ñi ñuy wax ni ñoom ñooy aar li ñu bokk li ñuy wax dara amu si. Mhm. mais jusqu'à l'heure où on parle ils disent oui na leer mais en attendant muy leer opération de com pour opération pour com ñoom am nañ de d'excellents commu nañ mhm. génn preuve à l'appui nañu non ñii li ñuy wax mensonge la du dëgg xanaa facsimilé yu transfert d' argent yeeg virement yeeg war nañ ko am que je xaalis bu mel noonu kenn du ko joxe par chèque wala par donc ñun dañ bëgg rek mu leer su leeree sénégalais yi dafa ñu ne si jamais ces accusations sont fallacieuses jëm ci camp Macky Sall su boobaa ñi koy teg ci kaw table bi ça va se retourner contre ñoom mais wax dëgg yàlla le bon sens est la chose la mieux partagée. soo déggee wax jii nii nag nga xam ni wax fa dëgg yàlla leeragul. mais am na lu nekk ci ci ci ginnaaw loo xam ni xelu nit ñi. xajamal nañ ko waaw euh, facsimile yooyu ngay wax sax jógee ci banque yi am na yoo xam te ne na di circuler dans les réseaux sociaux pour wax ne léegi nit ñi moom pour am certaines informations mm-hmm. ils sont prêts à tout euh, mais ci problème bi itam euh, Assane le mm-hmm. socle de la République est en train de vaciller mm-hmm. te li ko indi du lenn lu dul problème bi tu vois de ces institutions yoo xamante ne waruñu communiquer tey ñu ngi génn di communiquer am yenn kilifa yoo xamante ne suñu ne homme am na yenn euh, wax yoo xamante ne war ñu la cee dégg mm-hmm. mais ñoom ñëpp jug sol robu avocat pour défendre euh, Aliou Sall mm-hmm. ki nga xamante ne dañ ko joxoñoon ba bëgg ko incriminer muy OFNAC ñoom tamit ñu jug di seetal seen bopp di dédouané wu euh, tey mu indi benn ko boo xamante ne mm-hmm. loolu day fragiliser comme ni ma ko waxee le socle de la République est en train de vaciller absolument comme ni nga ko waxee noonu la demee maanaam bu amee scandale parce que c'est pas seulement au Sénégal mooy am ay Mhm. on a vu le Watergate demin déjà 1972 président Nixon bi mu weddee weddi weddi eh, Bristin ak Woodward journaliste yooyu Washington Post def seen enquête dafa mujj démissionné France euh, site Mediapart de plus en plus mu ngi ñaata ñaata scandale Bettencourt euh, Panama aujourd'hui le président Sarkozy boo moytul day dem prison mais scandale bu amee day déstabiliser effectivement une république fii boo xoolee gars dañu paniqué noonu laa ko mën a tuddee parce que Kassé nan lay nekk responsable de la cellule de communication de la présidence di programme une interview ci organe de presse bu toll ni tv nga ni président yëgu ko kenn yëgu ko moom moo dem di wax waxi boppam il y a un problème. un problème ça c' wax nga ko sànq au niveau de OFNAC kenn mësul dégg OFNAC di polémique. Mhm. surtout bi fi Seynabou nekkee ba léegi. nekkee waaw elle euh, n'est non seulement ça mais sax dañ ko doon taxé dañ ni kii daal dafa sedd quoi. Mhm. dafa mais dafa obligé réagir pourquoi parce que procureur bi moo jël ni rapport bi matul maanaam defuñu seen liggéey ni mu waree ñoom ñu waree ni def nañ si non seulement def nañ seen liggéey ni mu mais le camp. est dans la euh, la balle est dans le procureur bi yow yaa war a jël say responsabilités. wuti juge d'instruction. alors que procureur waxoon na fi nit ñi camp bi euh, bal bi mu ngi seen camp yéen yéen wax jox leen ñu ay preuves na euh, Seynabou ne ko bal bi mu yow kay jot nga rapport yi boo war a jot a jot nga ko. Mhm. yaa ngi ak 19 rapports te te te exploité woo si benn. loolu moo ne wa institution yi au au niveau de la république au niveau bu mag a mag si république bi institution yi ñu ngi songante di dalante te loolu daawul am. Mhm. donc déstabilisation am na am na ñu dàq démissionné am na dàq am na euh, décret de nomination am na ay quatre décrets de nomination indi nañ à la rescousse ay nit foofu nag am naa di jàngat parce que j'ai pas compris pourquoi ñu mel ñu ñu bàyyi woon Latif ak Seydou Gueye au frigo bi ñuy def nomination ñoom ñaar dañ leen bàyyi au frigo est-ce que dañ doon prévoir situation bi pour indi leen ou pa parce que foofu man c'est la question que je me pose. que apparemment du moment que nee nañu rapport bi pare woon avant euh, la présidentielle. waaw on voulait attendre que. enquête bi pour mu génn. parce que c'est louche que ñu bàyyi si ku mel ni Seydou Gueye ak Trump bi mu amoon ak ku mel yi waxuñu si seen i wax ba problème bi am ñu doon leen nommer c'est louche. donc dafay mel ni am na lu ñu doon préparé ñoom amoon na lu ñu ci xamoon. Mhm. te am na lu ñu doon séentu. te kase aussi mu ngi mel dañ koo sacrifier ainsi de carrément mu génn. parce que gëw ma ni def na faute professionnelle boobu bi ñuy wax donc am na daal gestion bi état bi yëngatu na au niveau de la république parce que xamuñu les conséquences euh, futures parce que gars yaa ngi manifester. Mhm. pareeguñu hein sur le plan international euh, le club de Paris euh, amoon nañ fa ay promesses financement seconde phase du PSE j'espère que du am problème. Mhm. pour pour gars dugal fi ay fonds et tout ça le président actuellement mu ngi dem na ci G G8. Euh, ci ci sommet bi c'est vrai parce que invité woon nañ ko avant actuellement yan conséquence la am la la la situation bi di am euh, c'est ça la question parce que y un rapport il rapport de de de la banque de de de l'Union européenne non euh, un rapport. après les élections mm-hmm. mooy bi ñu def euh, au niveau de la commission de l'union européenne bi doon bi doon kii les élections ni bon parrainage bi surtout recommandation mais regarde la la, la réaction virulente de l'État c'est ça mais dañu mer c'est-à-dire. et pourtant on a ratifié ratifié ces conventions mais ñun dafa mel ni euh, critiques yi jógee fële dañ koy. Euh, kii mais bu fekkee ne dañ ñu diw pomade bi. ñu kontaan wax dara non ñoom ñun ñoo leen woo. comme observateur ñu audité audité sax suñu fichier électoral ñu jël seen i mooy audité indi seen observateur fay leen def seen rapport def seen recommandation recommandation maanaam ba ñu sañoon lii am. Mhm. mais recommandation la mais regarde comment ni autorités yi mere lu ne wax nañ ko. ni nañu immixé woog seen yoon nekku seeg lii say seen sénégalais le ministre de l' intérieur ensuite ay ñoom Mor le les cadres Abdoulaye Diouf saar ku ne wax mais ça veut dire que diggante euh, allier traditionnel bi maanaam Euh, euh, l'Union européenne la France les États euh, l'Angleterre les États-Unis ak le Sénégal commencé na am genre li niroog si man genre crise diplomatique mhm. mu ngi commencé instauré wu avec cette affaire de la BBC là ak rapport déjà rapport commission observation élection bu Union européenne dafa wane déjà une forme de de crise diplomatique boo xam ne mu ngi commencé instauré entre le Sénégal te loolu dafa grave ak ak l'Union européenne qui est un partenaire stratégique donc yooyu dafa grave ba nga xam ni je crois que pétrole bi jaru ko il faudrait bien que ñu ressaisir wu parce que réew mi ñoo ko moom ñoo ko bokk aussi kenn yéenewul kenn lu bon comme wax na ko sànq rek Abdou Khadre wax na ko sànq c' est pas une question Aliou Sall ou pas mhm. euh, c' est une c' une question focalisée aussi benn nit président moo def erreur stratégique en politique soo defee erreur stratégique da nga koy nangu mhm. au moment où tous les sénégalais nee nañ mere nañ Ablaye ngir Karim Wade ngir ngir Karim Wade kese laa wax de tax nañ ñëpp mere Ablaye Wade parce que bu kenn waxaatu ko mhm. mais nga ñëw waxuma la yow sa frère sa sa frère sa beau frère sa say ndijaay say say bàjjan sa mais c'est pas possible bien sûr ci point boobu sax laa bëggoon euh, rebondir euh, Sanogo comme Assane ni mu ko waxee euh, li ñu jëlee fi Wade c'est pas par rapport à sa gestion wala dara mais par rapport ak dévolution monarchique lañ doon wax oh. mais bi on nous parle de dynastie tey même dans la communication du chef de l'État lors de la Korité il parlait de mon frère il n'a pas dit monsieur Aliou Sall en tête pour formaliser pour dire que on est dans une république mais il a parlé de son frère oh, tey loolu yëpp tey est-ce que du loolu moom moo gën a envenimer les choses sans que yaa ngi koy wax on a incriminé euh, Aliou Sall mais le principal responsable c'est le président Macky Sall. en tout cas si quand je dis responsable ci le fait que mu immiscé ko si les affaires de la cité. c'est ça mmh. parce que en fait aujourd'hui ah ci grande démocratie parce que dégg naa tey ki mu nommé porte-parole muy wax ni non ci grande démocratie yëpp mun nañ teg loxo ci kaamel donc je <laughs> moom moo nekk le maître mot. dañuy wax ne éthique c' est l' esthétique du futur dañuy yën jënd yëre bu cher mbubu bu cher daal or yëpp baax na mais jamono ba ñu jëm ëllëg li fay gën a jekk gën faa rafet ci toogaay mooy rafetaayu jikko da ngay dañuy fàtte ni même le Coran il dit la xad xalaqnal insaana fii axsani taxwiwin. dama sàkk doomu aadama si gën gi melo. mais xëy na effectivement d'ailleurs on dit l'homme est naturellement né bon mais c'est la société bu koy korom mhm. mais ci biir lu ñu am tentation tentation joker benn bi di ñu dóor pour ñuy dem ci lu bon mu war a mun am tentation aussi souvent ñuy résister pour nekk ci lu baax donc loolu mooy éthique esthétique du futur maintenant ci biir éthique bi daf si am aujourd'hui ci démocratie yu mag yëpp effectivement amul constitution fenn fu ñu bindee nii waroo jël sa frère waroo jël sa sœur ainsi de mais soo buggee doxalin bu sell boo xam ne nii kenn du la joxoñ baaraam ci temps moderne yi bu yeboo soo falo et d'ailleurs je dis temps moderne Thomas Sankara falu na fi j'ai entendu une interview de son frère mu ñëw ne ko dama bëgg ndimbal mu ne ko man daal su ma amee dara lu ma la mën a may mooy sama saagu cuir bi nga xam ne maa ko moomal sama bopp ak sama joogin bi ma sol ñu wax ko nga am si moom bi mu nekkee président mu ne joogin bi ma mayoon bi mu doon footingee ak saagu cuir bi ngeen gis fële te pourtant il le pouvait mm-hmm. époque bi mu koy nekk conscience yi yeewuñu woon sax mm-hmm. donc pour man benn problème aussi Sénégal boo xam ni c'est problème socio anthropologique kuy xalam di ca jaayu barke ba yaay borom. ak yooyu. doole lu muy jëriñ lu dul buuxante. liggéeyu ndey. liggéeyu ndey añu doom <laughs> pouvoir du liggéeyu ndey. Hmm. pouvoir ànd sunu borom moo la koy jox. Hmm. su la ko joxee ba pare dafa am fu mu koy jaarale mooy ci sa peuple. gis nga ñi fal Macky bu njëkk ba ak bii yëpp am na d'ailleurs dégg naa ko sax ci benn discours bu rafet bu mu def. génn wàll gi yëpp si paa yeeg maire yeeg xale yu ndaw yu ko voteel yëpp bu xasoo bu dugg pale xam nga lu ñu ciy am kontaan naa parce ki ma wóolu dem na après ñoom bu ñu xëyee suba ku nekk yaa ngi xool loo xam ni moom nga dem defi parce que diriger yi jafewul de mm. mais malheureusement aussi foofu aussi bugg naa rebondir il est très facile benn problème am rek ngeen profité aussi ne way Aliou Sall Macky Sall que ñi koy wax aussi di ko juger ñoom nañu xool bi ñu leen dénkee ay mbir lan lañ doon doxalee ci seen jabar ak ci seen wàllu tur ak ainsi de suite parce que Sénégal fii dafa yomb trop ku nekkul ci position soo ko joxee parole mu ne la oui ça c'est des choses à bannir c'est de l'esthétique c'est de l'éthique il y a des principes à respecter am na ay valeurs mais yow suñ la joxee nguur li ngay njëkk a xalaat mooy changer sa oto jabar sa kër sox sa kër yaay say turandoo say ba loolu mun nga ko def ci sa xaalisu bopp boobu moom mais xaalisu réew mi mhm. xaalisu askan bi la donc maa ngi benn papier que j'ai intitulé xam nga ku ñu waxoon ni Mauritanie ñu ko su ñu jàppee ni dañ leen sàcc élection dinañ génn si mbedd yi kenn du ko gëm. Mhm. xam nga Algérie Bouteflika def na fa lu ko neex. ku ko mhm. waxoon lii du ko gëm. Mhm. il faudrait que dirigeant contexte yi nii ñuy déglu seen peuple te ñu bañ a déglu. dama yàlla baal excusez-moi du terme troubadour yi leen wër rek leen wax yaa fi mën yaa fi le grand Ablayat je dis bien grand parce que intellectuellement voici un monsieur pour moi. waxoon na fi benn problème amu ne li brise buy jàll fu mu mujjee. Mhm. Abdoulaye a toujours écouté son peuple. li ñuy wax Macky Sall di ko wax président Macky Sall di ko wax aussi président réew Afrique yëpp mooy le pouvoir appartient au peuple su peuple bi jugee am ay jafe-jafe pour di laaj ay informations par rapport à certaines choses war nañ ko koo mën a jox mais li ñu gis nii yow yaa ko waxal sa bopp on ne on parlait pas de d'évolution monarchique mais de projet. Mhm. projet ça a valu à Watson il faut le dire waxuñu ko pourquoi que ce soit mais ñëpp xam nañu Abdoulaye jàmbaar la woon lool réew mi soxla woon na ko fi ba ci kanam mais bi sénégalais yi jàppee ni mi ngi bëgg a doomam moo leen dàq jàng je à ta mère que vous avez mu jàpp ay noir fumé mu commencé ànd ak ay copains ñu tuddee seen boobu génération du concret ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jugee bañ doon xeex ak Ablaye Ablaye Wade di nekk si mbedd yi kenn xamul woon fu ñu nekk ñu commencé maye xaalis di ko ndatatalax de manière responsable sénégalais yi jóge kii nag falu mais nañ ko wax te dee jël goro jël mag jël rak sa soxna presque c'est une vice-présidente bis dégg naa sax président conseil constitutionnel ñuy def euh, serment prestation de serment moom muy féliciter sa soxna ah di ko wax naan ko ah, liggéey amul sens donc orthodoxie républicaine boobu il faut mhm. ñu dellu fa mhm. te loolu xam nga fu muy jaar à travers une socialisation boo xam ni depuis le basage ci ñi nga xam ne nii avant ñu egg ENA ci sunu instruction civique ci suñu leçon de morale ñu jàngal ñu ne le bien public suñ la ko joxee yow lañu ko jox sa jabar moomu ko sa mag moomu ko sa rakk moomu ko dinaa sax xaw a classe am na benn politicien am politique bu mag faloon nañ ko fi mu ne nañ jox jabaram voiture de fonction <laughs> nañ ko jox mais attendez sénégalais yi leen fa yóbbu seeni i xaalis ak seen i taxe moom ngeen di jël di ko fayee ko mais mm. xam nga éthique da doon bëgg rek man mënoon naa sax d'accord mu jël gorom mais soo xasee ba jël sa goro nag kay wax dëgg yàlla sa rakk ak ñu war nañoo mën a muñ parce que am na sénégalais yoo xam ni jàng nañ ba jeexal téere yi nekk fi seen place nekk ci mbir yi mais ña fa toog empêché nañ leen ñoom ñu egsi te mhm. loolu nag c'est de l'injustice sociale mhm. euh, tey jii euh, euh, Assane mhm. ci problème bi ba léegi dafa laalaat itam beneen entité moo di la presse parce que jàpp nañu ne ci mhm. problème bi itam li gën a induire les citoyens en erreur c'est la presse une certaine presse je vais dire ñoo xamante ne seen traitement de l'info ci wàll bi dafa gën a euh, féete ci par parlo que ci de dire la vérité wala bokk euh, am benn nuance boo xamante ne di nga ko am au moins ci traitement de l'information bi waaw absolument je pense que bari na luñ ci mën a wax euh, éthique déontologie effectivement wàllu presse parfois day am un sérieux problème day am un sérieux problème parce que euh, du question xam xamuñu li ñuy def mais ñaare boo booy wut intérêt ci li ngay def euh, doo wax dëgg euh, dooy wax dëgg parce que da ngay wut ko ku la neexal ko neexal depuis effectivement yi ñëw ba léegi gis nañ problème boobu Sénégal problème problème presse bu am problème c'est vrai que man tanewuma kenn bay jox le leçon <laughs> mais gis nañ difficulté boobu nit ñi am ko pour assumer seen responsabilité en tant que journaliste gis nañ loolu euh, nan la gars yi def pour c'est vrai que la presse dañu clochardiser beaucoup de journalistes fexe ba journalistes yi sonn mhm. carrément nekk à genoux c'est ça euh, loolu réalité la bi ci des mooy ñi bëgg suqaliku dañuy daw jéem a laqatu nguur gi xool nu ñuy def pour am voilà ñu mën leen aider jàppale leen bu ko defee ñu noppi wala ñuy jàppale loolu c'est une réalité qu'on a vu c'est très malheureux parce que damay fàttali ni presse quatrième pouvoir la quatrième pouvoir bi mu mënul sotti lu dul mu neex le président de la république parce que mooy chef d'orchestre su bëggoon dooleel presse bi daf koy dooleel mu indépendante mu may ko dignité mu may ko mu may ko pouvoir mu mu séral ko ci pouvoir mais su jógee rek pour xeex rek presse bi day nërmeelu parce que tam ay ay nit ay ay nit ay góor ak jigéen dafa ne am ay nekk ay père de famille yore ay responsabilité sociale y a un certain niveau bu ñu fa àggee mhm. dootuñu mën a assumer seen rôle te loolu daf ñu jàpp donc il a fallu que la euh, BBC euh, en tant que organe euh, indépendant je crois mhm. ci li ci foog li ma ci xam euh, def assumer yenn responsabilité tekkiwul ni nag benn journaliste mosu si liggéey ah kay wax nañ ci jëf nañ ci euh, c'est vrai que porte bi BBC doon am xëy na organe yi fii mhm. amuñu fi mais y a des journalistes yu taxaw assumer seen responsabilité mais damay wax ni de plus en plus euh, le pouvoir dafa am mainmise sur la presse comme ni mu am amee mainmise sur la justice am mainmise sur la l'Assemblée nationale te loolu dafa mag yi concentration des pouvoirs ci ay loxaam lii sax dafa pete ci loxaam rek bett ko mais foogewu ko woon noonu mhm. donc je crois que il faut que de plus en plus les confrères ñu jël seen responsabilité de plus en plus di aller vers ce que j'appelle les le journalisme d'investigation du man sax maa tudde noonu le journalisme d'investigation dafa xew te mooy l'avenir de la presse parce que actuellement ku nekk mën nga créer sa blog ci site internet joxe information. Mhm. nekk genre journaliste noonu. mais nag euh, lañ mooy différencier le le vrai journaliste ki nga xam du vrai journaliste mooy de plus en plus aller au fond des choses. c'est ça waaw être très <laughs> il faut que les journalistes aillent au fond maintenant mhm. des choses. di analyser mais aussi di rechercher di def ay investigations. Ah, il a les techniques d'investigation journalistique ñu mhm. mettre ko en avant. pour mën a di génne la vérité. parce que population bi loolu la soxla. c'est vrai euh, ci point boobu comme ni ma ko doon waxee sànq Abdou Khadre maa ngi doon wax ne problème bi dafa mettre à nu euh, beaucoup d'autres problèmes <laughs> euh, tey jii beneen problème je vais revenir un peu en arrière. avec la justice certes décrédibilisé woon nañ ko jàppoon nañu ne la justice n'est pas libre entre guillemets mais tey jii daf ko gën a fësalaat après euh, la réponse de Seynabou Ndiaye Diakhaté pour dire au procureur que ça y entre tes mains yow yaa deful sa liggéey ci fànn boobu kon mu mel ne instrumentalisation bi ñuy wax au niveau de la justice euh, ñu ngi koy gën a mettre au devant. mais bien sûr en tout cas de et pourtant opération de COP bi ñu doon def instant boobu c'était pour rapprocher procureur de la République ak peuple sénégalais comme ça su génnee ci contexte bi mu wax leen na leen donc man jël naa en charge dossier d'ailleurs bi muy génn waxul rek dossier bi daf ci dugal dossier wu fàllu seen bi dossier dossier voilà donc euh, sous peu di ngeen gis euh, ñu commencé procédure yi am na ku ñu war a entendre ainsi de mais sénégalais yi ils si biir wax bi xam nga dañ ni wolof day lépp ne ko wax feeñ mhm. soo gisee si Euh, peut-être humour bu mu ci dugal wax nga ko ah, léegi jàkka jaa ngi noonu. ko bëgg noonu daal eh. donc da doon sentir ni. sérieusement waaw da doon tooñ quoi. da nga doon wax da doon buñ ko waxee alors Aliou Sall est-ce que mun nañu xaar ñu gis nga réaction bi mu am il a souri ça veut long. Hmm. mais damay wax rek ne man damaa dépassé sax xëy na ay waxu procureur bi waxu justice de manière générale. Hmm, hmm. pouvoir exécutif de manière générale pouvoir législatif mais ñoom dañuy fàtte argent du contribuable ci lañ leen wutalee ku leen di garder kuy fay seen njàngu doom seeni oto yu bakkane kilim yi leen di upp lépp ñun ñoo koy liggéey ñu ñu di fay ay taxes ñu cëralal leen ci lu rëy pour ñu mais pour autant il faut que ñu xam ni foofu souvent ma dégg ñu ne oui justice Sénégal instrumentalisée attention ah il y une génération de magistrats et de procureur hyper ces gens-là ils sont compétents. mais on on on les met pas en selle. surtout <laughs> la jeune ah, génération man dama am ñoo ah, ah. xam ne nii dañoo jàngandoo bokki nekk footballandoo defandoo parcours defandoo culture yëpp. des gens très intègres. Mhm. xam nga lu Sénégalais yi bëgg fi mu nekk nii dañu ñoo alternance générationnelle ñu naan politique bi yooyu na waxuñu. mais dañu bëgg rek ñu ñam tuuti ñu essayer nañ ñam man expression ñam nañ ñu mosal tuuti loxo jeunes procureurs ak jeunes magistrats yi nga xam ne ils sont très bien formés jeunes di ils sont très intègres di def très bien leur job ñu jox leen dossiers yi ñu xool di ngeen gis lu ngeen musul gis dinañ ko doxalee fu ñu ko war a doxalee dinañ ko waxee fu ñu ko war a waxee mais euh, malheureusement dañuy jël ñenn ñi rek teg leen si kanam après jox leen affaire après ñu ne non attention. il faut mais il yi dañu léeb ne ku la ëmbal sa sànqal nag. nga ëmbal ko nga ëmb sa kersa donc mhm. pour man wax nga ko léegi. xam nga problème yu mel nii daf ñuy yóbbuwaat encore ci benn dimension religieuse c'est vrai que nekkuñu diine ak jamono. Mhm. mais attention gis nga Jésus da doon wax ni qui tue par l'épée périra par l'épée mhm. am na lu ñu lu ñu instrumentaliser woon yu bëri ba daaneel benn nguur mais j'ai l'impression que dafa mel ni germe yi dafa commencer encore di te germe yi may wax nii je j'insiste sur ça parce que foofu aussi sooy def analyse aussi il faut être très objectif par rapport à ça ci ci accusation BBC yi man jàpp naa ni am nañu nekk aussi parce que BBC amul intérêt rek ñëw aussi def reportage am ne day wax ci affaire pétrole ñan ñoo nekk ci ginnaawam d'autant plus que xam nañ ni soo duggee ci wàllu science politique surtout ci gestion des conflits Afrique li ko wër yëpp Sénégal intéressé wu ñu xam nga yaa ngi wax léegi mais BBC si enquête sax dafa incriminer une entreprise britannique. Euh, y a BP donc la BP donc. vous voyez donc vous donc moi je vous dis donc question bi wax nga ko sànq wax nga danga sentir benn tension. Mhm. diplomatique entre occidentaux yi ak Sénégal ak Sénégal ainsi mais en vérité Sénégal amul woon ressources yi commencé guñ ci woon am yaakaar. mais gis nga réew bu am yaakaar ci Afrique man personnellement j'incrimine les occidentaux ci jiixi jaaxa yi am ci pays Afrique yëpp moo tax lancé nga message bu am solo. Mm-hmm. ñun Sénégal bokkuñoo ñeneen ñun ñoo même su fekkee ni bokkuñu xalaat ñoo bokku lépp mbir mi nañ ko teg ci table bi ñu leeral ko ci njalbeen nga bu amee dara lu ñu mën a defar ñu defarandoo ko balaa ñuy nekk ci situation yoo xam ne ñëpp xam nañ la problématique. bi fi amoon ci Elf ak Congo Brazzaville Brazzaville bi. Mhm. Mhm. nu mu demee woon dégg gisoon nga régime yi ni mu doon demee entre Sassou ah ñoom donc situation yooyu ñun la ñuy bañ a demaat parce que il n'est pas question que bu dee Abdoulaye Wade la mu am ci fële ñu nekk à l'étranger jël ci seen tambu yi togg ba mu ñor mu tëb Macky Sall ñëwaat encore ñu togg seen tambu yi ba mu ñor mu tëb Ousmane Sonko ñëw suba ñu togg seen tambu yi mu ñor mu tëb nañ profité aussi problème bi. régler pilier wu question wu gaz bi ak énergie bi de manière très claire ñu dépasser ko comme ça beneen nguur bu fi ñëwaat mu pare wu tout toute éventualité parce que il faut ñu xam ni occidentaux yi ñooy noonu Afrique dañuy maslaak ñun bugguñu ñu benn yoon bugguñu suñuy ressources bugguñu ñu ñoŋ bugguñu ñu jëm ci kanam gis nga li xew bërki démb si euh, seen inscription yi ñu yokk euh, parce que xam nañ ni bu nit ñi demee bitim réew ñun africains yi généralement soo gisee 15 africains tubaab bi si ñuy soog ñëw donc ñu bàyyi situation bi ba mu yóbbu ñu ci situation conflictuelle très tendue ñu soog ñu soog a woote alerte. Mm-hmm. fi mu ne nii fi question bi egg question de waxtaan la ak leeral rek suñu leeralee ñu waxtaan ñu dépassé ko ñu dugg encore ci ci yeneen défis yi nga xam ni auquel nous sommes confrontés. mais est-ce que ce n'était pas prévisible Assane comme maa ngi ko doon wax. Euh, bi ñuy mm. lancé dialogue bi le chef de l'État avait dit que qu'on se soude qu'on se donne la ma parce que y a des forces étrangères qui vont venir nous déstabiliser ak yooyu ñu prévenir ci yooyu. Mm-hmm. est-ce que c'était pas prévisible problème yi yëpp ñuy dund. ndax par exemple mm-hmm. ci négociation yi ñu doon def ak yooyu ak euh, li ni mel. Mm-hmm. ak euh, milliards yi nga xamante ne diggoon nañ ñu ko ca Paris ak yooyu yëpp mu nekk benn problème mais ñu laaxaale ci beneen question rek moo di ne est-ce que ces manifestations qu'on voit tous les vendredis peut le problème. waaw est-ce que manifestation yi mën na régler le problème manifestation euh, li ñuy wax pression la. pression sur le régime parce que mm-hmm. du élection nekkuñu période électorale et mais ñooñu mën nañ def pression d'ailleurs la preuve Aliou mm-hmm. de la caisse de dépôt gis nga déjà premier résultat pour wane ne rek ni pression bu continuer kenn xamul fu mu mën a àgg parce que yaa ngi fàttali ko Blaise Compaoré doole mm-hmm. ji amoon Blaise waxuma la Burkina mais yeneen pays africain dañuy wax ne day déstabiliser yeneen pays il était très redouté waxuma Algérie Abdou Khale wax na ko sànq. avec Bouteflika le benn benn et cetera et cetera. donc kenn xamul kenn xamul la ay ay manifeste pression de toute façon le peuple rek moo am moo am le pouvoir donc ci moom la ñu war a war a war a war a war a teg lépp mu leer léegi nag affaire pression étrangère chaque fois bu amee ci réew boo ko seetloo hmm. waa réew ma ñoom ñoo ñoo nekk les bras armés de l'Occident bien foo ko gis rek waa réew ma ñoom seen bopp ñoo du responsable ñoo du si waa ñoo def ay actes yoo xam ni mag yi dama ko xoon sànq dinaa ko répété mënuñu xeex ab Ablaye Wade naan ministre de l' de terre et de la du ciel et de la terre nga ñëw jël sa frère ñu ne déeta waay waxuma pétrole de dama jëlee sa pétrole nga làbbali ka caisse de dépôt et consignation te dañu woon te nga ni woon yow doo ko nommé fenn benn weddi nga say wax ñaar nommé nga ko foo xam ne presque man dama ko tudde woon ministère de ministère des finance bis. c'est parce que dépense d'investissement yu bëri état bi ci caisse de dépôt la nekk. te waxuma dara mais nga ne léegi caisse de dépôt bu ko kenn contrôlé ñun xamuñu lu am caisse de dépôt rek. Mm-hmm. lu fa am xamuñu. kenn xamu kenn xamu. kenn xamu ña fa ne di wax ñoom Babacar Diame ñu ngi koy nuyu de passage tout ça mais ñooñu ay waa Macky lañ la wax noonu waa Macky la. c'est yooyu mooy on a prêté le flanc c'est-à-dire quelle que soit force bi euh, puissance étrangère yi di am ñun ñi ñoo leen di may poids possibilité ñu ñëw indi seeni problème ci suñu réew parce que ñu ñoo commencé ci noo xam ne kenn du ko nangu nit mënul bu ci bokk bokk euh, lu mu bokk kenn akimoo ko wala ñaar akimoo ko wala ñett akimoo ko kenn du ko nangu il faut que mu leer de le départ bu ñu tegoon lépp ci transparence problème yi du am mais comme prêté nañ la franc force étrangère yi tamit dinañ ci profito ñoom parce que ñoom déjà si nañ ay contrat ku mel ni BIP BP mais BP euh, journaliste bi Manny Jones euh, reportage bi mu def BP sax la gën a sonal. te les britanniques duñ ko bàyyi noonu. Mm. bien sûr les américains duñ ko bàyyi noonu. Mm. les gens il faut que ñu xool dëgg-dëgg est-ce que affaire jaar na si yoon est-ce que parce que cette personne là politiquement exposée IPE ku mel ni Aliou sax une personne politiquement exposée parce que dafa jigéen président. mu ngi doon liggéey ak Franck Timis wala bëtuku eh, nga signal ko contra fay ko xaalis ah alors que ñoom defuñu benn effort lu dul signer benn contrat jaayaat contrat eh mais loolu il faut que ñu analyser la situation donc quelle que soit force étrangère puissance bi ñuy on am ñun ñii souvent en Afrique que ce soit au Congo wala beneen réew boobu problème yi am mooy malédiction pétrole bi ñuy wax malédiction bi ñun ñooy def tout parce que la famille présidentielle d'habitude mooy ñu bëgg a jël accumuler richesse. c'est ça loolu mooy indi les problèmes parce que souvent li tax ñuy bañ nit di jël ay mbokkam di ko teg ci pouvoir loolu la. maanaam da ngay da foo xam ne yow dañ lay jël en otage am na sax kase waxaat na ko ci beneen rajo de ni xaw ma président li mu nommé Aliou Sall xaw ma il était forcé xaw ma mais c' est grave li mu wax noonu ça veut dire que le président subit des pressions léegi nag kan moo def pression ci président ça veut dire qu'il y ban lobby moo nekk derrière bay teg pression sur le président de la République muy jël un certain nombre de mesures loolu c'est un problème ça veut dire que y un problème parce que boo fekkente ni tey da nga jël say mbokk teg leen dañuy dafay créer benn oligarchie ñoom seen bopp dañuy créer un réseau euh, politico-financier de profiter des situations créer une situation ba nga xam ne yow da lay obligé nga accrocher au pouvoir parce que parce que boo demee ñu daal voilà loolu moo tax dans tous les pays africains là au Gabon Congo gars yi duñu bouger dévolution mais tey jii est-ce que tey euh, ça devait arriver au président Macky Sall lui il était euh, au cœur de l'État xamoon na les rouages ak yooyu lobby yeeg yi ni mel pour s'en départir c'était aisé pour lui bien sûr non d'ailleurs je t'ai dit contexte boobu la faloo ci bi contexte en fait honnêtement peut-être que l'expression est un peu sera un peu un peu un peu lourde. Mhm. mais Macky nguur dafa nguur gi dafa daanu moom mu ramassé ko. waaw war da koo téye mu daanu foqatiwu ko de. Mhm. war da koo téye mu daanu moom mu for. mais en réalité aussi bien moom ña ko jege loolu jarul ñu ko yàq bi ñuy dem xalaatuñu woon mais boobu xëy na am na lu bëri loo xam ne am na sax lu ci bëri loo xam ni soo ko seetloo ba ci biir nekkul woon dëgg mais campagne la woon campagne. intox la boo xam ne dem na ba dugg ci conscience collective bu sénégalais yi que voilà Ablaye amuñu moom moom benn problème mais ku xees kii mu ñu bëgg teg doomam ji jabaram ji ainsi de suite mu dem mais donc moom surtout victime d'injustice bu ñu wax ni ci mbiru famille moo tax ñu jëlee la fa. Mhm. parce que jàpp nañ ni ñoom dañ dañoo jàpp ni doomam nga bëggoon a ce qui n'en est rien en réalité mais yow soo faloo ci contexte boobu nit bu la jiitoo bukki màtt ko nga jël place xanaa war ngaa xàmmee bu bukki bi. mais ñun dañu gis ni après honnêtement man ci communication Macky Sall fan yéele sax avant julli gi ci dialogue bi laa xaw a gis mu apaisé mais pendant longtemps ci jaay doole lañ ñuy jaay mm-hmm. forcing mm-hmm. duma ko def ah, non mm-hmm. dégluwuma leen euh, kii bi nu mu tudd loi parrainage bi ñu génneel ñu arsenal boo xam ne fañ ah, fañ fañ fañ donc do ci fan yi laa ko gis ci dialogue bi waaw mu xaw a mu xaw a apaisé malheureusement c'est au moment où peut-être ici attendait le moins ci la mbir mi ci la mbir mi jël mais daf may yóbbu rek si benn élément xam nga politique yi dañ jàpp ni dans l' analyse paramètres yu bari dañ koy jël en compte ba mu des benn paramètre boo xam ne moo njëkk moo mujj c' le paramètre Dieu <laughs> gis nga bu ñuy réfléchir di analyser di jàngale seen théorie politiciens yi politiciens yi kenn du la du waxal waa et le facteur suñu borom waxuma sax te facteur suñu borom nag mooy facteur boo xam ne nii boo koy soraale doo juum c' est ex c' essentiel parce que nguur yow nekkoo fi woon tu étais victime vous étiez victime d'injustice suñu borom dem ba ñu jox la grade yi yëpp waaye waaye man sérieusement man Macky Sall su ma doon man su ma newoon ci place am def benn mandat demoon sax il aurait été très grand et revenir mais après ñu gis fii yoo xam ni xalaatuñ ko woon ci moom les gens ont au de au de titre président booy Sénégal la c'est-à-dire il est jeune il est jeune dans la tête il est jeune dans l'esprit ci wolof bi homo sénégalensis la xam na li sénégalais yi di dund xam na fu ñuy jaayee caaf xam na fu ñuy jaayee mburu bu tàng xam na nu ñuy ataaya xam na mm. université fii la jànge waaw mais xam nga amul benn nguuru Afrique nag loolu laa loolu laa ko doon wax sànq ci occidentaux yi xamuma benn nguuru Afrique boo xam ni dañ dañuy gis président bi muy dem rek nga nga yaakaar ne il a les coups de France amul c'est normal si tubaab bi dafa am fu ñu takk foo xam ne mais su soxlaa moom. lu lobby la voilà lobby la moom bi mu faloon nu mu dem. <laughs> dafa dem rek voilà. ñu ñu ñu ñu ñu xuppoon ko ne ko tam doo fay salaire yi ainsi de suite. Mm-hmm. nan nan la def mu dem nuyoo ji. bi mu bi bi mu amee loi parrainage bi fii nan la def fu mu dem dafa jël avion dem France donc mais tant que amuñu courage politique bu ñoom Wade ñoom euh, xëy na. Euh, Blaise comment s'appelle encore Blaise Compaoré non pas Blaise l'autre Thomas Sankara amoon. lu mu baax loolu loolu c'est une te même loolu boo ko defee dinañ def lépp ba dugg say cercle xeex nañ ne ñoom ñëpp lañ xeex la est-ce que tey yaakaar nga ne les sénégalais am nañu benn maturité leen permettre fi mu nekk nii ñu amaat benn éveil euh, de de la conscience citoyenne. waaw dina dinaa la mun wax nag benn affaire d'ailleurs dañ koy wax gis nga histoire du répété wu xam nga gis naa ñuy wax ni d'accord pression mais 23 juin exactement mënatuñ ko amaat parce que même contexte yi du benn même si man jàpp naa ne su dee li ñu leen di jiiñ am na bii moo gën a garaaw vingt dévolution monarchique <laughs> bu dee li ñuy wax am na bii moo ko gën a garaaw foofu mais honnêtement bugguma j'ai beaucoup de respect pour le peuple sénégalais mais ni élection yi demee la dernière fois man je suis quand même parce que je me man bi may dégg peuple bi maa leen doon dégg si kalando yi di leen dégg si oto yi di leen dégg si bureau yi dañ doon wax ni non waa ji doy na waa ji doy na mais bi ñu demee élection gis nga ni mu demee donc yaa wax conscience mais attention il faudrait aussi ñu xam ni ñiy comprendre le jeu politique bëriwuñ mooy euh, cercle iconoclaste intellectuel yi nga xam ne nii voilà ils savent décortiquer ils savent analyser mais gis nga masse populaire bi moom xamul loolu boo ko ñëwee jox ko carte moom jox ko 2500 jugal ko ci benn oto jox ko te loolu jàppoon naa ni avec Wade dañoon na donc man dama jàppoon ni Macky Sall bi mu ñëwee moom moo waroon à travers euh, peut-être une sorte de boussole éclairer yoon bi de telle sorte que dina sax jouer ci conscience citoyenne nu Sénégal yi afin que ci ni muy doxalee nit ñu bëri dinañ yeewu nii moom ci li mu doxal ni ñun jàpp jaaree nañ fi. du ñu amati benn euh, rapport de du ñu nekkati benn subalterne ñi nga xam ni ñoom ñooy diriger nguur après bi mu ñëwee pendant un bon bout de daf ñu gëmloo ay discours yu bëri. patrie avant la partie di doxal yeneen affaire yi ngi fàttaliku bi Macky Sall faloo rek am na ku bokkoon ak moom te léegi nekk ko fi mais dañ ñu waat dafa sàcc ay tapis dafa jël ay tableau loolu du yoon ainsi de suite mais xanaa ñiy wax loolu kay à peine ñuy soog falu donc lii warul woon nekk ci seen magistère mm. mais loolu tamit dafa may yóbbuwaat encore ci dimension bi ma la waxoon man li ma gis mm. dafa mel ni rek am na àq bu ñuy fay parce que Khalifa sa xaw ma ko xamaanu ko mais <laughs> yaayam quatre-vingts ans et plus la am génn ay rongoñam ne dañoo tooñ sama doom Karim dafa am veuve am ay ñaari doomam ngeen dégg papaam lu leer lu mu wax daf ni ñii sunu borom dina ma àtteeg moom su fekkee ni nag entre ay rapportu ñaari nit ak da cee lalu yàgg rek lay doon mais tôt ou tard sunu borom dina àtte fii dina àtte fële. Euh, ci point boobu Assane pour ñu terminer rek yaakaar nga ne ne midi dina clarifier wu aux yeux euh, de sénégalais ndax euh, ñu ngi ciy xaar yoon naam bu fekkee ne ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi manifester ak yi ni même jàpp ne yoon boobu tëddee na njaaxaanaay ñu ngi ciy xaar euh, peut-être ñu ngi jàpp ne sur le plan international ñoom dinañ ci def seen warugar rawatina au niveau de Londres ak yu ni mel mais au niveau du Sénégal quand même est-ce que yaakaar nga ne que le président va laisser les choses aller crescendo ci yoonu nag leer. dina ma dina ma su dee leer dina ma bett ndax tant que Macky ngi fii day difficile. Mm-hmm. parce que je n'ai rien contre la mais dafa def di institution judiciaire bi ñoo yore poursuite yi ñu parquet général moo ko jiite muy le procureur général moo jiite le procureur de la république bi doon wax jiite tous les enquêteurs de la DIC de la section de recherche. Mm-hmm. ci seen responsabilité lañ nekk. donc ils dépendent tous de la présidence donc day day neex Macky rek. te pour mu jël frère am nag di di di ko weer ak a tëj comme xam ni mu def Khalifa Sall daf may bett. Mhm. donc te très franchement suñu defoon commission d' enquête indépendante man moom may gënal que nii ñu doxalee voilà gisuma daal foo xam ni dina leer ñu ngi ñu ngi miser wu nag sur le fait que Sénégalais day fàtte. le Sénégal moom day fàtte. mën na ah surtout bu Sénégal gagné coupe d' Afrique. waaw bu ñu gagné woon coupe d' Afrique bu mën na tàng. d' bi soxalu leen. soxalu leen ñu ko lee. taluñu ko waaw parce que dafa mel ni à chaque fois bu coow jógee dina tàng lool. mais après da ngay gis ni ñi commencé fàtte. xëy na foofu la ñuy miser mais tant que Macky Sall ngi fi ne daf may bett dossier bi ñu leeral ko ku ni ko Sénégalais di xaaree dëgg-dëgg daf peut-être que ci côté Londres boobu ñu xaar euh, Aliou Sall. kay na ñu wóolu ko mu dem leeral <laughs> ko dem euh, maa ngi lay gërëm euh, di la sant bu baax di wax rek ne aussi il faut aussi quand parce que ci état de droit lañ nekk. jusqu'à l'heure où on parle il faudrait que ñi koy accuser ñu jox ko aussi droit wu présomption d'innocence am parce que amul benn xëy na ci biir wax ji aussi am na juum yu nit ñi di juum. mais noonu lañ defoon Khalifa Sall ak Karim Wade boobu aussi bokkoon naa ñëw naa ba tay ci ah, plateau yi leen wax ni yéen a leen di juger alors que ah, benn yoon moo tax ma ni la mhm. tey c'est trop facile ngeen mhm. nekk si beneen camp bi nga ni way ñu ngi accuser yéen a ko doon ah. def mais principe règle de droit dañ koy dañ koy respecté tant jaarul ci devant un tribunal ba ñu juger ko mhm. na nit ñi considérer ni vraiment pour le moment il est innocent ba keroog muy leer même si ku mu neex nag aussi mën nga am ay suspicion ci problématique merci beaucoup Abdou Khadre Sanogo Assane Samb yow tamit si liggéey bi yàlla jàppale Sénégal jàmm am fi xéwal yi mën a yokk ba xale yi di bàyyi gaal yi ñuy <laughs> yéeg di dem fii réew Europe léegi Barça bi fii la <laughs> waaw <laughs> nañu toog liggéey réew Barça bi Barça bi léegi fii la waaw nañu toog liggéey réew mi c'est important merci beaucoup Abdou Khadre Sanogo ak euh, Assane Samb di jaajëfal bu baax Oustaz Assane Diouf mi fare woon ci coordination bi du côté de la régie de la réalisation technique euh, Charles René Fall ñu koy jaajëfal Jacques Gabriel Préra ñu koy jaajëfal Fatouche Bamba Basel itam ma koy euh, jaajëfal bu baax di leen jaajëfal yéen ñi safoo leeru jamono Walfadjri naan leen dorénavant seen émission Selebe Yoon di ngeen ko am àllarba bu jot su 15 heures jotee ci Walfadjri leeru jamono jàmm ak jàmm